Bonjour à tous et à tous, c'est de la RTT TV. On est très ravis de vous euh, servir à chaque fois sur notre euh, télévision RTT TV, la télé des artisans. tey ñu amat mbégte contentement bu baax a baax euh, ñëw fi nga xamante ne mooy diwaanu marché Grand Thiès di leen taataanal loo xamante ne mooy wàccaayu Korité gi fii ci marché Grand Thiès sa diggante clients yi ak jaaykat yi ci bu xamante ne mooy diwaanu marché bi tey nag ma ànd ak koo xamante ne mooy aji moom moo nekk si caméra bi xam nga vraiment di def liggéey bu am solo ci bi si ginnaaw caméra bi aji bu baaxee rek xam nga danga may topp ma daal di woon euh, téléspectateur RTT TV euh, loo xamante ne moo xew ci marché Grand Thiès ak waa marché bi lan la ñuy euh, waajee loo xamante ne mooy korite gi aci aji bu baax baaxee ñu dem. mu ngi noonu comme ni ma leen ko waxee sànq ñooy foo xamante ne mooy diwaanu marché Grand waaw ki ñu taxawal nii kenn la koo xamante ne moom jaaykatu soble la xam naa dañ koy tàndaal suñu micro rek xam nga mu daal di nuyoo après ñu daal di xuus tuuti ci waxtaan yi sëñ bi maa ngi lay ziar. yàlla na yàlla nangu ziar ñoo ngi ziar ñëpp. Euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp. mën nga jàkkaarloo caméra bi. bon man je m'appelle euh, Khaly Ndiaye. Mhm. bon bokk ci euh, filière oignon bu Thiès. Mhm. nekk fii ci marché Grand Thiès. Mhm. donc euh, comme vous le constatez. donc marché bi bon clients yi ñu ngi ñëw ah ñu ngi ñëw mais bon dëkk bi nag moo amul xaalis. mais soble bi moom vraiment c'est abordable quoi parce que bon prix bi ñu koy jaayee moom maanaam parce que soble doon nañ ko fi jaay quinze mille francs seize mille francs. gis nga comme vous le constatez gis nga booy ñi ngi koy tiré te léegi soble bi dafa gën a amélioré mm-hmm. léegi dafa gën a baax même qualité bi léegi dafa gën a baax parce que bon ñun Fuuta lañ koy jëndee mais bu ñu ñëwee dañ koy soti def ko ay vingt cinq kilos comme nga bon auparavant saako yu mag lañ daan jaay mais bon essence bi moom essence bi moom nice quoi vraiment. waaw essence ah, bi moom nice quoi vraiment essence bi moom nice. Euh, fii nii def ngeen euh, stock soble am ay euh, yoo xamante ne ay tonnes tonnes. mais est-ce que réellement euh, boo xoolee clients yi ñoom ñoo leen di taw si comme auparavant ni c'est que dëkk bi nag moo amul xaalis loolu moom il faut ñu comprendre ko ko dëkk bi amul xaalis macha allah. mais nag bon daaw boo xoolee soble bi ren ren gën a cher sax daaw parce que daaw boo xoolee soble bi euh, comme Korité mi ngi doon jaar cinq mille francs mais actuellement ñu ngi koy jaayee sept mille cinq cent huit mil francs. kon donc 500 8000 francs mais est-ce que est-ce que loolu dina yombalal ñoo xam te ñooy fu euh, clients yi ba ñoom ñu mën a satisfaire ci loolu. non bien sûr bien sûr parce que soble doon nañ ko fi jëndee 16000 francs temps yële. Hmm. soble doon nañ ko jëndee 15000. mais xam nga soble bii soble local la. Hmm. boo xam ne ci réew mi lañ ko bàyyee. Hmm. ci réew mi lañ ko bàyyee vraiment bon prix bi baax na parce tamit aussi soble il faut béykat yi di ci gis seen bopp. client yi di ci gis seen bopp ñun tamit ñu ciy gis suñu bopp mais instant bi moom vraiment nice quoi prix bi moom abordable na quoi abordable na client yi ñu ngi ñëw mais bon tempo tempo quoi. xamante mooy Ousmane Diouf Ousmane mi ngi lay ziare. waaw ah, ça va sant yàlla ba alhamdulilah ñu ngi leen di delloo ziare di yàlla yàlla ñu yàlla nangul koor gi. ñu eggale ko jàmm ci barke yeneen bi ci barke weeru euh, gis nañ ne ñaari fan ñoo ci des. waaw ah, euh, en tant que jaaykat en tant que vendeur. nan nga dundee marché bi. waaw marché bi de xam naa ne bagage am na daal xam naa xam naa nag dëkk bi nag metti na lool nag wante bagage am na daal vraiment bagage am na soble am na pomiteer am na. est-ce que client yaa yi nag commencé nañu ñëw par benn benn. waaw ñeneen ñi sax dañuy toog fu ñuy toog yoon yónnee nga teg ko ci Jakarta jox leen daal. am na ñoo xam ne loolu la def daal duñu sax ex duñu ñëw daal wante dañuy yónnee wante lépp ci ñëw la daal waaw waaw. mais jamono ji am na ñu bëri ñoo dañ naan euh, marché bi dafa xool métti parce que euh, lii di euh, dañ gis ne événement ren nag yaakaar ci ci ma yaakaar quoi parce que ren boo seetee béykat yi ñoo gën a bénéfice ci ci soble bi. da heure bi danga nga daan dëgg coow li soble bi mu ngi yàqu mu ngi yàqu te ren vraiment macha allah ñun ñoo xam ne dañuy dem euh, Fuuta parce que gis nañu loo xam ne presque soble bi daa yokku Fuuta wante fii waaw wante fii nag yokk yokkuwul fii quoi yokku na Fuuta wante yokkuwul fii ba léegi wante mu ngi jar fii euh, trois cent vingt cinq presque mooy huit mille rek huit mille daal lay jar saaku vingt cinq kilos yi daal kon affaire bi yokkagul daal béykat yi nag ren nag macha allah gis nañu gis nañu njëriñ ci kii bi ñun ñu xam ne pratiquement dem naa Fuuta ñetti yoon ren gis naa ñoo xam ne béykat yi di jaay macha allah boo ñëwee fii sax yenn say doo ci am dara boo xoolee transport bi bagage yi def fay transport fay xottu saako fay nangam fay yenu fay wàcce bu doon jënd bagage rek jaay rek bagage yi day yomb wante li li koy seeral nag mooy transport transport yi looloo koy seeral daal. wante du question bagage. kon transport bagage waaw ndaxte boo xoolee moom ngay calculer lépp jël saako bu nekk temps ki la koy yénul ki koy wàccel ak xottu saako yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy kii koy jënd. boys waaw waaw ñoo xamante ne ñooy jaaykat ñoom xamuñu yooyu. waaw day baax yéen ngeen ngeen ko yi nag am na jaaykat yoo xam ne yenn saa yi damay ñëw wan leen bu leen bëggee ma wan leen lépp li ma ko jindee li ma ko kiiyee lépp bu leen neexee am ñoom damay dem ak ñoom ba loolu. transport nangam saako bu nekk temps yi la koy wàcceel ñi la koy kiyal ak gisoo booy li koy def nii tànn tànn bi da ngay fay saako bu nekk. boo calculé say di nga dem ba pare boo ñëwee mhm. bénéfice bu ñàkk solo ngay am xanaa dangay ñaan yàlla rek barkeel daal waaw pompiteur bi nag instant yi vingt cinq kilo yi nag bu seeree ba seer daal xam naa ne yi huit mille nag gars yi nag mën nañu dem ba ci biir <laughs> ñu yokkaat. Euh, fekk nañ la mhm. xamante ne euh, mooy mhm. diwaanu euh, jamono jii nii nii nan ngay dundee loo xamante mooy wàccaayu korité bi. waaw sant yàlla rek. fekk war nañ ko daaw fekk waat ko déwén loolu sant yàlla la mais ñoo ngi ci marché bi moom wax fa yàlla affaire cher na cher na trop pomme de bi cher na soble bi ñu def ci xewal ak parce que instant bi ñëpp bëgg a korité ñu def ci yërmande rek te wàññi affaire yi ndax ñëpp mën a am waaw ñu jéem wàññi dugg yi waaw instant bi moom marché bi lépp a seer kaani boo ko laalee ñun la mooy loolu waaw bi cher na daal instant bi moom lépp a laaj cher na xorom sax dafa cher xorom boo amoon juróom da nga jënd mais léegi waaw mu moom daal nañ ci def yërmande rek waaw Sénégal moom réewu teranga la réewu jàmm ak salaam la waaw ah man euh, lu may lancé euh, ci gouvernement bi parce que ñoom ñoo yor affaire yi waaw nañ ci jéem a def xewal ñi ñi sonn nañ dëkk bi metti na waaw instant yi dara mënoo koo laal lépp a metti waaw am nañu am am nañu amul am na ñoo xamee ne moom instant yëguñu dara waaw mais am na ñoo xamee ne seen loxo jotul seen ginnaaw nañu xool ñooñu waaw. jaay euh, loo xamante euh, euh, jamono ji ñu toll nii ak wàccaay Korité gi nan nga dundee marché bi ak ñoo xamante ñooy client ah client yi ndànk-ndànk rek fortaat rek ndax marché moom marché Grand Thiès moom mu ngi nii rek presque événement yi moom sant suñu borom daal. waaw ñu ngi ko dund daal man légume laay jaay moo tax client yi dañuy ñëw ndànk-ndànk ñu for rek ñu xam ni loolu la. est-ce jamono ji légumes yi yomb na ak loo xamante mooy euh, doole client yi. waaw loolu nag moom wax dëgg la affaire bi moom fi moom dafa xaw a cher carrément moom yokkute gi moom distance su deux jours trois jours yokk nañ yokk boo xam ne clientèle yi xameewuñ ko noonu client yi tamit xameewuñ ko noonu xanaa yow yaay mujjee débrouiller rek naxtaan ak ñoom rek xool ku ci nekk sa poos li nga xamante ne moom nga dégg mën a naxtaan ak moom ba jox ko mu dem waaw loolu la moom. ñoom ñooy liggéey liggéey bu am solo liggéey bu rafet macha allah dina koo gis xam ne kii moom mooy jàppale jigéen yi baax a baax tax na benn jigéen sonnatul saa yu maa la ziar. ñu ngi delloo ziar. nga naka sant yàlla bu baax Yaya Kane. Yaya Kane de. Eh, waaw Kane Kane. ni man naa nekk de. <laughs> mais Yaya. oui euh, li nga def euh, euh, trop Yaya daa tax nga benn jigéen sonatul. oui pour l'instant moom jigéen sonatul ñaa comme nuñ doon uh-huh. bu njëkk dañ doon sonn trop mais pour l'instant moom mooy lool. Mm. des fois may client yoo xamante dañuy naan ay cinq sacs. Mm-hmm. bay quatre sacs. Mm-hmm. ñu naan lii bu amutoon moom mooy lool dañuy sonn. Blaise ñu ngi leen ay jàppale carrément. ñoo jaay soble bi léegi vingt cinq kilo bi mi ngi jar huit mille. pompe terre bi mi ngi jar sept mille cinq cent moom lay jar bu dee détail kilo trois cent lañ koy jaayee jigéen ñi bu dee da ngay jaayaatoo nag ñu ngi la koy jaayee kilo quatre cent waaw mais mais mais mais euh, jamono ji ne loolu nekk na loo ne yéen yomb na ci yéen yéen xamante ne yéen yéen ah, yomb na kay ndax ñun ñu ngi ko jaayee trois cent ñu ko jaayee quatre cent am cent franc hmm. waaw kon yow euh, da ngay jënd di jaayaat damay jënd di jaayaat su ma jëndee trois cent teg bascule ñu jaay ma jaayaat 400 am kilo bu ne 100 francs kilo soble bi daal bu gënoon a yomb it moom moo ñu gënal ndaxte dama seet nii xëy na lii Sénégal lañ koy béyee comme que Sénégal lañ koy béyee nag dama yaakaar ne waroon naa gën a yomb ci ñoom góor ñi koy jënd di indi ñu nit jigéen ñi koy jënd ñu yomb ci ñun bu fekkoon dañ koy jëggaane man naa cher mais ne comme ñun ñoo koy béy te nekk ci réew mi di di béy ñun waroon nañoo gën a yombalal góor ñi góor ñi yombalal jigéen ñi. arrangé ak comme liñ koy béyee nii bu gënoon a yomb it moom moo ñu gënal xëy na soble daan na dem ba ay kilo deux cent deux cent cinquante bu événement bi jubee nii mais moom dafa. yokku carrément. kilo bi ñaata la. kilo 500 400. mais est-ce que kon gars yi dinañ korite ah dinañ korité kay duñu korité mais nag. a ah, waaw ñu korité ndax ci biir dañuy jaay 500. da ngay gis ñuy jaay quatre cent cinquante soble quatre cent trois cent cinquante nga xam nga itam loolu ci jaboot it day métti ñun dañuy fortaatu rek topp si ginnaaw suñu góor ñi ah. waaw xam nga waaye wax dëgg yàlla bu dee soble bi am na bu dee pompiteer bi am na est-ce que xam nga client yi moom client yi moom noo def rek dañuy jooy mais boo xoolee soble mbay moom euh, pour man boog seerut ah. parce que boo xoolee soble mbay huit mille euh, ñun gën ngaa bëri sept mille cinq cent lañ koy jaay jaayee pompiteer 7000 francs loolu nekkul loo xamante ne dafa seer ci nit ki par rapport bu doon importé bi soble tubaab bi bu moom bu fi ñëwee moom tout le temps day jar ay 11000 12000 ba 13000 mais kenn musta kaas lool noonu mais boo xoolee soble mbay bu seer gi seer gi yëpp saako bi 7500 lay jar xam nga pompiteer saako 7000 xam nga loolu nekkul lu seer mais yow mi jënd dëkk bi nag moo métti métti boo xamante ne nit ki loo ko mën a wax jamono ji dafa métti ci moom parce que xaalis amut